maa ngi voté école maternelle Mame Diarra Bousso bureau numéro un dëgg yàlla askan wi génn nañ massivement pour voter ce qui veut dire que am nañ détermination pour tànn ki nga xamante ni moom lañ wóolu pour mu jiite leen seen dëkk loolu nag ñuy encourager vraiment tout un chacun pour que ñu déroulé ko ci jàmm ak ci salaam ndax lii fekk 18 mu jeex te bu jeexee ñun ñoo fi desaat donc ñëpp benn lañu. participation bi mënul faible parce que nit ñi élève te élection dafa am enjeu bu kawee boo xamante sax bëgguma wax ci rajo mu ay interne yu extrêmement élevée et sensible yoo xamante ci 24 heures yu mujj yi la ya commencé yaatu donc créer une motivation bu extraordinaire ci ñenn ñi te xam naa fekk midi information yi bu gën a tas da nga gis nit ñi dañ gën a génn en masse. voté en masse. mooy woo rek askan wi mooy kër boo ci dëkkee sa alal jépp nekk fa doo ñaan yàlla mu tàkk képp kuy taal bërëb wala dëkk wala kër parce que amoo fa loo xamante ni bu yàqoo nga torox ñu ne amuñ leen fenn Mbàkke lañ am suñu lépp fi la nekk suñuy waajur suñu njaboot suñu alal li ñu am lépp Mbàkke la nekk nekkul feneen amuñu dara feneen kon duñu ñaan dëkk boobu tàkk du ñaan dëkk boobu am jafe-jafe bu amee jafe-jafe lépp si suñ kaw lay waat moo tax ñuy woo ñëpp ci jàmm ak salaam ak retenue ak vote ci jàmm ak salaam tànn ki nga xamante ni jàpp nañ ne moo gën ci dëkk bi ñu wateel ko ñun nag suñu gis-gis suñu xalaat mooy dagaanaat davantage askan wi seen baat jox ñu ko ñun ñun ay modèle lañu war a doon ci domaine yëpp moo tax gis nga euh, campagne bi euh, bien vrai que provocation yëpp amoon nañu possibilité de riposte mais da jàpp nañ ñëpp say administré lañ ku ci loru it wala mu am ci jafe-jafe yaa war a taxaw kon koo war a taxaw wóoruloo ko andil jafe-jafe moo tax nag euh, ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla joxaan ñu ndam li ñu continuer liggéey bi ndax wërta taxaw li suñ mën taxaw waxoon rek wërta laal suuf dafa war a continuer di wéy